Macky bit si réew mi Macky Sall léegi Sonko la bëgg a jël jox ko muñ gi muñ ministre de la muñ la ko bëgg a jox <laughs> mooy toogal ma lay def lu ma neex ngay muñ dégg nga euh, am nañ am nañ kii nu mu ci euh, conseil économique social mais xam naa conseil responsable c'est tout ce qui se fait xaw ma la dans ce pays mooy Pastef Sonko mooy ministre de la muñ Pastef ñooy respo ñooy ñoo yor conseil bi nga xam ne bépp problème bu am ci réew mi ci lu saful xorom sax waa Pastef la Macky Sall loolu la bëgg a dugal ci bopp nit ñi dégg nga léegi nag li am solo mooy Macky Sall doo ko dégg mu wax ba woote jàmm doo gis Moussa Fall bi muy wax wootewul jàmm procureur du ko woote benn Bokk Yaakaar xoolal seen dix dernière dernière conférence de presse yëpp violence la ñuy woote léegi ñoom ñi yor réew mi su dee parewuñ pour jàmm am fi fan lañ mën a jaar ba jàmm am fi d'accord kon donc ñoom ñoo war a woote jàmm te dox jàmm buñ ko defee rek jàmm am mais mënuñu dëkk ci nit ne ko léegi yow yaay ministre de la muñ su ma xëyee dinaa la saaga démb démb démb démb dañu xëy topp palaasi yi yi di ko di ko di ko toj yëg nga loolu d'accord maam aadama euh, Adama ñoom euh, Thiam mhm. kenn ku ci nekk dañu dañoo yor sa photo photo xam nga préfet yoonam nekkul ci photo nit d'accord noo xaaral loolu dafa am solo préfet yoonam nekkul ci di photo nit ay photo lañ yor photo di wër kii fii place kii ñu ne la fii la nga indi sa bill de serre toj demaat VDN ba tojaat beneen place loolu bu fekkente ne loolu àgg nañ foofu ci ku la bëggul sax di jàppale Ousmane Sonko nga dem toj palaasam am kooku bu ñu la bàyyee vraiment boo paree ak sénégalais yi fi nga jëm waxoo